aouzu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullah dal leen jàmm ci seen eh, émission yoonu gàmm ba tey ñu ngi ci njàngaleem ku baax ki sallallahu alayhi wa sallam nekk géej goo xam ne ñaare loo ci tànk rek du doy te loo bàyyi jàpp ne la nga jël la nga jël la nga bàyyee ko gan doomu aadama sunu borom tabaraka wa taala daf ko bindee mu nekk ku bëgg lu fes nekk yit koo xam ne moom ci jëmmi boppam dafa bëgg fës bëgg it lépp lu muy def demee noonu te it loolu dafa mel ni moom moo dëppoo bànneexu bakkanam te it l'islam dafa ñëw pour yar bakkan l'islam dafa ñëw pour yar doomu aadama yar ko ci lépp loo xam ne mën naa yàq diggante moom ak boroomam yar ko ci lépp loo xam ne mën naa yàq diggante moom ak moroom ndax ni nga xamee ni noonu la doomu aadama bëggee lu fes ki nga xamee ni moom la jàkkaar lool mooy mbokkum doomu aadama noonu la bañee it koo xam ni day def loo xamee ni lu fës la ak lu ñëpp di gis kon ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dafa waxoon ci ab xadiis boo xam ni daf ñuy jàngal ni yàlla borom bi tabaraka wa dafa bëgg jaam boo xamee ni buy def da koy nëbbu jaam boo xamee ni dafay bëgg lu nëbbu jaam boo xam ne dafay bëgg li muy jëflante lépp noonu doon secret waaye nekk loo xam ne dafay sori bëtu nit ñi taxoon moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inna allaha yuhibbu al abda attaqiya alganiya alxafiya allah mu dajale ñeenti ñetti melokaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne yàlla borom bi tabaraka wa taala dafa bëgg jaam boo xam ni dafa ragal boroomam benn mooy day jëfe ndigal yi di bàyyi tere yi alxani yi jaam boo xamee ni dafa doylu lépp loo xam ni borom bi tabaraka wa taala séddee na ko ko ci wërsëg da koy doyloo te sant borom bi ngir mu dolli ko waaye lépp loo xamante ni borom bi tabaraka wa xaj na ko ko day gëm yàlla tabaraka wa taala te ka ko yàlla may mu mu kontaan ci waaye du ko añaane inna allaha yuhibbu al abda attaqiya al ghaniya waaye al xafiya boo xamante ni tey lu muy def da koy def ci lu nëbbu da koy nëbbu bu fekkee dafay saraxe day nëbbu bu fekkee dafay dimbali mbokkum nitam dafay nëbbu bu fekkee nga xamee ni day def lu baax da koy nëbbu ndax bu yàggoon boroom xam-xam yi daanañ wax ni nit ku ne boo bëggee am ngërëmal yàlla war ngaa nëbbu say baax baax comme ni ngay nëbbee say ñaawteef waaye léegi lan moo xew gis nga bu la yàlla mayoon portable bu rafet sax bala ngaa mën a am jàmm faaw nga sinab ko wax ni man portable bi ma yàlla ni mi ngi nii portable nangam portable x laa yor wala nangam wala pro la wala bu fekkoon nga xamante ni tey da ngaa bëgg a sarax yi sax faaw nga daal woo média bu fekkoon nga xam ne da ngaa dimbali da ngaa bëgg a dimbali koñ ba moo xam da nga leen di dimbali ci làmp wala da nga leen di dimbalee ci ay yére wala da leen di dimbalee ci ay bale yi ñuy balee koñ ba faaw nga woo média bi ñu filmer ko publier ko est-ce que loolu bokk na ci ak nëbbatu déedéet ña nga xam ni ñoom nga koy defal sax ñaara ci xew doo am yàlla doo am ngërëmal nit ña ndax nit ña buñ la gërëmee ci seen làmmiñ it gërëmuñ la ci seen xol kon li yàlla tabaraka wa taala wax ñaara fi nekk booy def lu baax publier wala nga nëbb ko bu fekkee la tax nga di ko publier di ko siiwal da ngaa bëgg ñeneen ñu baax ñu mel ni yow roy la ci ah alhamdulilah loolu baax na waaye boo ko nëbbee nag moo gën ndax bokk na ci ñi nga xamee ni ëllëg yowmal qiyaam lu mu tar tar tar yàlla seen borom tabaraka wa taala dana leen musal ci tartari musibay yowmal qiyaam mooy ñi nga xamee ne bu ñu defee lu baax seen loxo ndeyjoor ba ko def seen càmmoñ du ko yëg kon bokk yi am lu la yàlla defal wala ngay def lu baax na ko nëbb bàyyi leen puuk réew bi bàyyi leen euh, rëy rëylu bi bàyyi leen wan ni nii laa mel te xam ni képp koo xam ni yaa ngi puuk réewoo ak la ngay puuk réewoo lu mu rëy rëy rëy rëy rëy am na ku ko ëppale fuuf koo xamee ni mi ngi ci sa suufi tànk tëgg tëdd te mënta jóg képp koo xamee ni da ngay wanewu la tax ngay wanewu la nga ca am la mu rëy rëy rëy rëy rëy am na ku la ko ëppale fuuf te yàlla denc na ko ci sa suufi tànk te mënta jóg mënta yëngu kon dara jër fee puuk dara jëru fee ngand ngandalu nañ ne degg ci suuf te xam ne suuf moom attan na lépp waaye nañ na tekk ci suuf te bàyyi ngand ngandalu beeg rëy rëylu bi te xam ne yàlla sunu borom rek a fi nekk donte da ngay wane xéewal yi la yàlla sa borom defal ngir sant na nga ko def ci anam goo xam ne ku la gis dana ci gis yàlla dana ci gis ak cant waaye dana ci du ci gis mukk ak puukarewu wala mu ji di gis rëy rëylu axiru daawaana an alhamdulilah rabbil alamin assalaamu aleykum مشاهدكم رماحي ولو